يونت نينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه نينا سو يالا بغي تي نجيت اك ريويسير اك جام اك موج داكاي ديفال مينستر بو دغ su fàttee xee mu fàttali ko ko su fàttee wut mu dimbale ko ba loola mu xalaat te xam ko mu daal di koy mën a jëmmal nee na su yàlla bëggut ci moom tawféex nag da koy defal ministère bu bon du ko fàttali te du ko dimbale pour mu mën a def dara lu koy jariñ